ñu ngi lay gën a jege te foo jàng xasaay itam ñu daal di fay teew maa ngi leen di xamal ne got gi mas naa fi jàng ay xasaay gis bu laa doon jàng may jàng di jàng la xasaay di jàng ba yàgg ma ne gees gis sa sallallahu alayhi wa toog Serigne Touba toog waaw jaaxran ñu ngi toog ku nekk a ngi muñ waaw ku nekk a ngi muñ ma toog ba yàgg ma ne ñokket dugg ci raama raam fi ma defoon sa ay montar ak yëpp montar ndax montaru loxo moom du woon sa mbir waaye montari yi poos yeeg ci kii yëpp lu ma xam ne xoy-xoy la daal maa ngi koy fab di raam di ko sànni ñu ngi may xool di ma sànni loolu lépp laxasaay ba ne ngodd jàppaat jësu di yëkkati di yëkkati ba yàgg ma geesu jotaatuma leen lii da da moom am naa ko bu wér a wér sama digganteeg ñoom ci njàngum xasaayit kon nag ñu góorgóorlu bu baax a baax O Igor